نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا adelsiwaat nañ ci tafsir bi bi idnillah xam ngeen ni ba tey ñoo ngi ci suuratu Huud war a tàmbalee bopp aaya 28 baada audu billahi min alsheytan irrajim ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدي إلا على الله وما أنا بتارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذري أعينكم ۖ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن ابتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوهي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الحمد لله رب العالمين نونجي bàyyeekoo woon fi yonent yàlla nuux di waxee aw nitam nit ñi bañ laaj ko lii fu mu ko jëlee mu leeral leen ko ñu ne gëmuñ ko yemut ya ñu ne danañ ko faagaagal danañu xeex li muy indi nuux nag ne leen donte sax li ma wax su dee dëgg ngeen xeex ma ñu ne ko waawaaw àdduna noonu lay bindoo jamono bu nekk ahlul ahwaai wa zayg du ñu soxla ay tex déedéet ñoom li ñuy jàpp mooy épreuve de force lañuy ñuy bëgg a jëfandikoo jamono bu nekk te nit su fekkee yaa ko noono lu mu wax danga nga cay bëgg xëpp suuf kon nit soo bëggee xëccoog moom teg ko ci xam-xam soo bëggee joteeg moom teg ko ci xam-xam moo tax nuux ne leen li ngeen di bañ yépp donte dëgg laa wax da koy bañ ñu ne ko waaw nit ñi naka jekk bëgguñu dëgg dëgg moom dafa mel ni day dox ak seeni bakkan dem na sax ba am ñoo xam ni dañoo jortu ne nuux ñàkk moo tax muy wax ba ñenn ñi commencé naan te ñu koo utal lu mu def ndax daa am jot loolu lañ ñuy wax gis nga ñiy wax diine di wax sunna dañ leen a jàppee ñu du dara ah, anday sànnoo dañoo amul luñ jàpp rek et vraiment moo tax boo nee yàlla ne kenn làmb juróom jox la xam <laughs> da jàppee ab yelwaankat boo xam ni pour moom yow boo amoon loo liggéey amoo temps ne fi naan yàlla nee na loolu dangay toog di def waxtaan jékki benn meer ñëw sànni dara benn paa ñëw sànni dara mooy ndeysaan kii de daa mu lu mu jàpp loolu rek lañ koy déggee moo tax bi ñu commencé wax loolu jàpp ne nuux mii jot a ko jàpp ak ñàkk lu mu am kon nañ leen xool lu ñu ko dimbalee nuux tontu leen ne leen wayaa qawm gis nga yaa qawm li muy tekk ci arab ku la ko wax dalaa yërëm te bokk ci yow sa nitu deret moo la koy wax ndax kenn ñemu laa wax sama nit te bokkul ak yow du askan ak yow kon nuux ñi mu doon waxal ay mbokkam lañ ay baayam ay maamam ay bàjjenam ay frère am ñooñu la am moo tax mu ne leen wayaa qawm yéen samay nit kaay leen ma wax leen li ngeen yaakaar demewut noonu laa asalukum alayhi maala gis nga li may wax nii laajuma leen ci fay de déedéet soxlawuma ci fay soxlawuma ci xaalis bu dee fay yoru leen ko te su ngeen ma joxee di ngeen ma baare moo tax bépp daa'i bu nangu ñu lay jox ala xisaabi daawa bu ñu la noppiloo nga noppi bépp bu nangu ñu lay jox ala xisaabi daawa bu ñu la nee bul dem fee doo fa dem loolu mooy danger bi nekk ci di fay nit pour mu daawa ñetti mbir mën na la caa yóbbu mën na laa yóbbu ci wax lu dul dëgg su ngeen seetloo ñu bëri ci yenn duaat yi nga xamante ni dañoo am kafaala boo leen seetloo ci terrain daawa bi doo leen gis déedéet doo leen gis te pourtant chaque weer dañ leen di fay dañ leen di fay pour daawa lu baax la lu am solo la ndax fay bi la mu doon nekk mooy nga bañ a am lu la tardeel pour nga mën a daawa loolu lay tekki mais su fekkee nag yaa ngi lekk ci daawa te daawa woo ah mbir mi nag dëgg-dëgg yow yaa gën a xam ni mi ngi mel ni kiy lekk alal ci nax rek kiy lekk alal ci nax looluy problème am ndax boo seetloo borom bi subhanahu wa taala dafa ni wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil baynakum bil baatil léegi-léegi nga gis koo xam ne day jël xutba jàmbur présenté ko ci taqriiram léeg jël waxtaanu jàmbur conférence jàmbur laaj ko ay thème présenté ci taq taqriiram ngir man maa def lii maa def nangam maa def nangam loolu coono boobu lan moo ko indi li ko indi mooy lekk ci daawa ngir ñu lay fay nga daawa léegi nag loolu bu amee su àndul ak ambition doo dem lépp lu nit di def ci kaw suuf ambition moo koy accompagner mu am solo looy def ci kaw suuf même booy jàngale te amoo ambition doo réussir même booy liggéey te amoo ambition doo réussir même booy commerce te amoo ambition doo réussir kon daawa bi da ngay am ambition daawa maanaam day dem ba day mel ni sa dret da ciy nekk day dem ba ñàkk koo def def ko moo la ko gënal lépp lu nar a dox sa digganteeg loolu dootoo ko nangu su àggee foofu nag mu def nag moytu ay pexe seytaane ak i buumam ndax pexeem ak i buumam bëri na bëri na ñu lay jox te li ñu lay jox dafa am fu ñu lay fàkkal joxuñ la ngir mbaax joxuñ la ngir yéene la jàmm mais dañu laa jox ngir fàkkal la fàkk nag mën nañ koo waaj kii ab daayi bu pertinent la bu nangam la li muy def ci daaw bi nangam nangam ay nit toog waxtaan kii dañ ko war a baare nan lañu koy baaree mooy nañ ko jox xaalis loolu def nañ ko yonent bi sallallahu alayhi te yonent bi li ñu ko doon defal moo gën a rëy li ñuy li ñuy defal ñeneen ndax dañ ko ni borom alal yépp dajale seen alal jox la ndax nga noppi dafa <laughs> dafa mel ni daawa bi na leen a tëj yonent bi ne leen ne da ngeen a xamut li ma yëkkati gis nga côté boobu dinañ koy defee directement dinañ koy defee indirectement léeg-léeg dinañ la jox ci turu daawa direct mu leer ne ci daawa lañ la ko joxee mais léeg-léeg ñu jox la ngir meeb la dañ lay jox ngir meeb la meeb nag defe naa xam ngeen ko bu loolu réussirul mën nañ laa jox indirectement maanaam jaaral ko ci say soppe jaaral ko ci sa mbooloo bi nga yaakaar ni ñoo ngi yow a nekk mën nañ koo jaaral ci ñoom li ñuy bëgg rek mooy ëllëg ñu am preuve boo xam ni buñ lay dugal ci pax day yomb loolu daay bi da koy moytu su loolu amul ñu dugg ci créneau jigéen yonent bi loolu lañ ko salla sallam soo bëggee ñu seet jigéen ji fi gën a rafet donte jabaru jàmbur la ñu tas ko jox la waaye daal noppil yonent bi ne xamuleen li ma yëkkati noonu dem nañu ba loolu nekk seen problème tey bu ñu xoolee barakallahu fikum xam ni mën nañ laa jaar ci jigéen mën nañoo seet jigéen ju jekk dugal ci moom ay xalaat ba mu ñëw di la jege mën na am sax mu muuru ba jilbaab foo ne allah wala jooy wan la ngëm gu ngand laa ilaha illa yàlla nañu yàlla yërëm billaahi wallaahi boo muytu foo toll da woo oustaz dëgg maa neex yow nangam fekk benn mission lay dox su paree pare na soo defut ndànk boo xamul nit ku xamul nit di nga jàpp ne kii moom ci gaa yi la fekk li ñu soxla mooy piège la loolu dañ koy sox dañ koy jéem ci pexe bu nekk nag su fekkee ni loolu réussirul léegi nag ñu doog a ñëw ci épreuve de force épreuve de force bi mooy doo ko fi waxee wala boo ko fi waxee ñu nangam waaw fii moom ku fi nangam ñu nangam la moom ngeen dégg suñu réew léegi ay nit yu jóg ñu ne dañuy aar kër nangam ku leen tudd ñu nangam dem bay tuddee sax seen mbooloo saaga dem ba jël aw saaga tuddee ko seen mbooloo subhaanallah xaw ma lii xew ci dëkk bi yéen a ngi koy yëg walla déet waaw dañuy aar ku ku nangam ñu nanga laa ilaha illallah mais loolu mooy ña loolu moom mooy ñàkk dëgg-dëgg ay preuve mooy mooy mooy léegi mbir mi fi mu toll mooy xayra ci la ñekk mooy gëlëm dem nañ ba xam ni mbir mi. mënuñu koo xeexee ay texte na ku ko jéemee xeexe ak da nga sonn ku ko jéem a xeexee xalaat danga sonn du sa xalaat du sa wax ki ko wax moo la bind ki ko jàllale mooy ki nga xamante ni yàlla def mu nekk yonant bi sallallahu alayhi wasallam kon amoo pexe boo ko xeexee loo fi indi it day mel ni sawu gone rek day fuur léegi mu seeyaat mu jeex tàkk na moom bu yeboo loo loo mën defal ñi la ëpp doole xeex nañ ko ñoom Abu Jahl ñoom Abu laat ñoom ñëpp xeex nañ li ñu mën jege fa buur ci kaw buur buur ci kaw buur ba léegi sun naa ngi nii te sax nag ku xamoon dangay noppalu ku bëggoon a xeex na dëgg-dëgg da koy bàyyi mu dem yoonam waaw na moom ki ko bëgg xeex da nga ko war a bàyyi rek mu libre waaye boo jàppee ni moom naa wax pour daaneel ko yokk nga ko moom bayreem moom mooy xeex ko wala tudd ko soo ko tuddee rek yokkal nga ko mbooloo ndax la muy doon mooy boo ko tuddee xeex ko nit ñi danañ jóg pour xam lan moo tax ñu koy xeex bis bu ñu jógee pour xam lan moo tax ñu koy xeex foo la ñuy géng ko wëlbatiku ne la eh yow li ngay wax nii ta nekk kon loolu moom mooy mbir sunna lu mel nii nag la nit ñi tàmbalee di ko indil nuux nuux ne leen wayaa ma yéen sama nit laa asalukum alayhi maala xool nga baat bi mu jëfandikoo maala man man laajuma leen salaire de ci li may wax nii non <coughs> laajuma leen fay du dama ñàkk moo tax may woote mais man ab fonctionnaire la yàlla ma recruter ma nekk fonctionnaire am nekk yonentam kon mënu leen maa wan lu rëy sama kanam lu gën a rëy yàlla tànn la def la yonent alal mënu ko jënd am am mënu koo jënd nguur mënu koo jënd alal lu mu bëri bëri bëri borom alal day xaar yonent ngir topp ko jub bu ko toppul dem safar borom alal ñaari bir day topp yonent jub wala mu ñàkk topp yonent mel ni xaarun dem safara kon alal mënut a jënd loolu xam-xam mënu koo jënd kon lii njub rek moo ko mën a jënd moo tax mu ne laa asalukum alayhi maala te gis nga li tax mu doy waar bis boo fi nekkee daa ay commencé laaj xaalis léegi nga soof nit ñi yàlla moo doxalee noonu léegi nga soof nit lan moo tax ngay laaj moom daal li gaa yi nangu moom nekkal daa yi ndóolal waaw ñàkkal waaye teel sa ngor parce que gis nga ngor ngor kenn du ko jaay léeg nga dégg ñu ne diw daa jaay ngorom ngor kenn du ko jaay parce que ngor dafa cher fa mu nekk kenn mënu koo jaay gis nga nit ni mu mel lay doxee boo gisee ku ne ci diina ji di laaj xaalis di def fu mu toll xamal ni kii baadoola dundam lépp ak baadoolo lay wane ba ci diine baadoola la ciy wane yàlla nañ ci yàlla musal ci biir diine nga baadoolo ci nag day dem ba dalay yàqal lu bari day dem ba nit ñi fu ñu la xoolee kii xaalis rek kii nangam rek kii nangam rek yow yaa ngi foog ni yaa ngi yëkkatiku nekk yaa ngi suul sa bopp kon loolu moo tax nuux ne leen laa asalukum alayhi maala utuma ci benn benn alal xanaa xamu leen man in ajriya illa ala allah man li may fay ak sama gi yaakaaru fay ci kenn la nekk muy yàlla ci kooku la nekk muy yàlla ndax fay ga may xaar du fii booy xaar lu fii léegi mu ràpp boo yoroon xaalis boo ci jëndee kër pentiiral ba mu rafet gis nga bees bi dong la gaa yi wax noo diw këram bi er nangam ñetti fan ñeenti fan bu xaj bëggee saw yëkkati tànkam ne ko curu ci sa miir dem yoonam <laughs> waaw kon kon loo fi am lu mu rëy rëy xale yi bu ñuy dox dañuy dox romb la kon li mu ngande ngande benn laps de temps bu gàtt la bu dee loolu ngay jaay amut solo kon gis nga li am solo mooy njub yàlla nañu ko yàlla may moo tax nuux ne leen in ajriya illa ala allah man fay bi may xaar ci yàlla la nekk wa ma ana mu mel ni lii dafa am baat bu muy tontu ndax dañ ko ni benn boo bëggee alal ñu jox la soo bëggul alal nag ñun bëgg nañoo ñëw mais baadool yi nga àndal vraiment mënuñoo toog ak ñoom ndax ca dog démb ga ñun buur yi daawuñu toog ak baadoo la ñii ñoo nekkoon suñuy jaam nekkoon suñuy nàngam tey ñu gis ñu ànd ak yow te yow sa diine moom li muy wootee moom mooy ak yemoo te ñun suñu deret nanguwul ak yemoo ñun fu ñu toogee dañoo bëgg a yëkkati tànk teg ko ci kaw nit kon nag li am mooy sa baadoole yi boo leen poussé ñu ñëw xoola fi ñu yóbbu nuux pour ne pousse baadoole yi mooy dañoo bëgg a indi nuux ci dund boo xamante ni moom mooy moom mooy dund dund dund jën lañ ko bëgg indi nuuhu ne leen wama ana bi taaridi alladina amanu jamais duma mës a dàq ñi gëm yàlla donte dañoo ñàkk donte amuñu donte dañoo néew doole ndax kat yàlla ñépp ko bokk te yërmandeem ñi mu koy jox ay jaamam la koy jox ñii mënuñ leen cee génne ndax dañoo nekk ay baadoolo munuñ leen cee génne ndax dañoo liggéeyul munuñ leen cee génne ndax amuñ ci luñ jàpp déedéet du ma ko def mukk mukk ndax bu ma ko defee xeeb lay doon te ab yonent warta xeeb ab daa'i warul xeeb da nga war a def leen benn mais tey boo seetloo malheureusement daawa bi tey da ngay xool kilifa yi bu kilifa ñëwee dañ lay sànni boo leen soxlaa sax bu ñu leen nuyu dañuy wax <laughs> puus la boo ñëwee mbooloo taxaw benn ministre ñëw fa keroog bu dee ab oustaz a fa nekkoon bu ko jox loxo de dalay toroxal de waaw dalay sànni fële gis nga boo gisee yàlla defal yonante bi benn formation ci loolu woxoon naa ko fi mooy formation bi mu ko defal ci wàllu baadoolo mooy ci ibnu umma abdi abasa walla la yàlla defal yonante bi xamal ko ni mbir mi tekkiwul kilifa tekkiwul borom doole léeg-léeg nga ñëw ci mbooloo ñuy préparer texte yi fii quoi siège député yeeg gars yi boo ñëwee dem ci toog gars yi di la xeelu wàccal waay buñ la ñemul wax dara wàccal même boo boo dee oustaz boo xamante ndeysaan ci as oustaz nga toll sax dañ lay pousse sa gannaaw nga toog fii daal ñi fi war a toog mooy <laughs> gars yi moo àdduna day doxee noo xam ne dund yonent yi moom ngay dundaat tey léeg-léeg nga gis lenn ci sabaab yi di naqar yu yenn comportement yi kilifa yi yore seen kanam wallahi dañ koy wax man de boog dinañ ma ciy wax lu bari waaye diw dama ko ni mais oustaz diw ni ma def diw nangam diw nangam yow mii def loolu en tant que ab daa yi en tant que ab borom xam-xam en tant que ku ñu naw mais yaa ngi juum yàlla joxoon na la correction bi ci alquran daf la waxoon ni mbir mi nekkul pour mbooloo nekkul pour far nekkul pour kenn mbir mi pour lu ñëpp bokk la mais bul jël baadoolo bi xeeb ko. man bu la tàllalee loxo doo ko jël bu la fëggee doo ko xaar même bu la soxlaa doo ko jox rendez te fi mu lay soxlaa nga bañ bu la fa kilifa soxlaa léegi nga jox ko rendez kon mbir mi du noonu mbir mi mooy ki am soxla ba ñëw ci yow recevoir ko waxal ak moom dalal ko parce que diine amul baadoolo diine amul benn eh, xaajoo ko ŋaayoo diine ñépp ñoom ñoo ko bokk moo tax nuux ne leen wama ana bi taaridi alladina amanu ñii gëm duma leen dàq su kenn njëkkoon a ñëw ci man ma recevoir ko duma ko bàyyi fekk parewul Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu dafa am ku ñuy wax Jibilat ibn Ayham benn buur la dafa ñëw seet si Umar Umar ibn Xattaab mi ngi këram recevoir ci duafaul muslimin di waxtaan ak ñoom waa ji agsi ñu agsi na ko Umar buur sàngam agsi na daf laa soxla Umar na leen waaw na xaar ba pare nekk ci waxtaanam ak ñële waa ji day toog ba jàpp xool ma caat xam nga buur yi ni ñuy yàkkamte dox tuuti kii rek yëngatu pour ñu gis la xam ne da ngaa préfet Umar moom continué li muy def ak waa ji dama dama dem ba affaire metti ko mu mu mu tourné génn vraiment man xaw ma lii quoi lii de boo xam ne duñ sa recevoir Umar bi mu demee ba pare la laaj ñu ne ko gedd na ba dem mu ne ah kon baax na gis nga xool leen Umarul Xattaab ni mu toll ci jamono bi kan nga yaakaar mu doxalee noonu. kan ci nit ñi nga yaakaar mu doxalee noonu ah kon gis nga gis nga ak yemoo démb ak tey moo war a am donte nag war nañoo xam ne daraja yi yemul baadoolo bi it wala ki néew doole bu ñëwoon tey ci ab sëriñ wala ci benn borom xam-xam gis ni am na kilifa bu am doole la jaadu woon moom mooy baat bu ko neexee mu tanaazul may kële loolu tamit bokk na ci bunt pour compréhension mu gën a yomb loolu moom daf caa bokk moom. ndax bokk na ci ak yeewu gis ni kat yow li ngay dox lu am solo la mais amaan na kii li muy dox mën naa ëpp doole li ngay dox wala mën naa ëpp njëriñ li ngay jox nga tanaadul may ko loolu tamit baax na dem yàggatul jibil la ñëwaat di dox yére buur yooyu di buubu comme niñ ko daan defee dem ñuy aj di tawaaf wër kaaba gi yëreem di buubu benn baalo la xam nga rek dox ndeysaan joggi ko yére bi wadd rek mu tourné ne ko tuy loolu ko gaa yi wax ko Omar ibnul Xattaab diw day def dafa dóor diw ci kii Omar ne ah atte islam rek ñu teg ci kawam yaa ko dóor mu ne waaw naa day fayu mu ne ko man ma dóor baadoola baadoolo di fayu Omar ne ko waaw islam amul baadoola buur mu ne ko kon génne naa islam mu ne ko yaa xam <laughs> sa problème la yaa koy yëg gis nga mbir mi moo tax yàlla nañu yàlla defal jàmm moo tax gis nga nuux baat bi mu ci teg wa ma ana bi taaridi alladina amanu xam nga lu tax innahum mulaaqu rabbihim ñoom baadoole yi dañuy dajeeg seen borom te gis nga baadoole yi yàlla xamul borom alal xamul leen gis nga yàlla li muy li bi ñëpp ci yem kullun ala haddi sawa tekki woo borom xam-xam rek bu ñu jullee tisbaar ñeent yow nga julli ñaar ndax yaay borom xam-xam déedéet tekkiwut loolu de tekkiwul ni borom xam-xam nga rek lu la neex nga def ni ñi lu leen neex duñ def déedéet mbir mi ñëpp ñëpp ñoom ñoo ci yem moo tax nuux ne leen innahum mulaaqu rabbihim danañu dajeeg seen borom te bëgg dajeeg seen borom moo tax ñu ñëw mu ne walaakinni léegi dinaa leen tontu ci li ngeen ma wax proposé ma alal ak dàq baadoolo yi araakum qawman tajhaluun man xam naa ni ne ceddamoo na ci yéen xamu leen su ngeen xamoon li ngeen di doxal démb di ngeen koy bàyyi araakum qawman tajhaluun yéen da ngeen a réer te ak réer moom mooy ak ceddu dëgg-dëgg léegi nag ni leen waaw li ngeen proposé su ma ko defee ba ëllëg yàlla di ma teg fitnaam ak nattoom kan ci yéen moom may dimbale kan mu ne wa yaa qawmi ay yéen sumaw nit man yansuruni min allah kan moo may dimbale ci yàlla bis bu ma yàlla jàppee ci sababu in tarattuhum ma dàq leen ndax yéen xañ leen ngëm yàlla te ngëm yàlla moom ma ko ba koy xañ kenn man damaa war a yaatal su ma leen dàqee ci sababu ngir bëgg leen a jot ñoom ñu dem ba ëllëg yàlla téema ne ma li nga dàqoon ñee di ko fay te kat la nas fa am bin nasiya kan ci yéen moom muy dimbale nit ñi ne tekk di ko xool ma ne afala tadakkarun xanaa du ngeen xalaat yéen li ngeen bëgg su ma ko defee mooy man man man ma génn ak topp wala aqulu lakum li may woote nii xaaruma seen alal waaye it nag ñàkk xaar seen alal tekkiwul ni dama am alal de loolu la nuux di layal ndax su bañee jël seen alal peut-être nit ñi dañoo jàpp ne daa am alal moo tax mu bañ mais mu leen di leeral cause bi ne leen wala aqulu lakum du ma leen wax mukk mukk mukk indi xazainullah ndam bi yàlla yi mi ngi ci man déedéet mooy maak yéen a yem man baadoolu laa damay bay damay napp comme li ngeen koy defee sama kër du ma denc lu jëm suba yonentu denc lu jëm suba déedéet duma ko def kon kuy dund laa ci taaba taaba kuy dund laa ci for kon dencu ma lu bari ndax it su dencoon lu bari ñu ne ay kii muy rey nit ñi di wax kii kii kii daa am dépense xam nga nit ñi mucc ci ñoom yombut waaw boo doon daawa fii di ngal ngale ñëpp di dégg ñu ñëw fekk nga bëri la lool ñu ne hee waaye kii Arabie Saoudite da ko jox kii li kii kay na wax ba dee dañuy jàpp ni fay moo tax ngay wax nuux ne leen wala aqulu lakum indi xazainullah yoruma ay ndam bi yàlla de wala aalamul xayba am suba xaw man ak yéen a ci yem wala aqulu lakum du ma leen wax ne inni malak man malaaka la déedéet duma leen ko wax mukk mukk wala aqulu du ma it nag lillazina baadoolo yi nga xamante ni tazdari dana sotti rangoñ di dottiku ayunukum seeni gët ñii nga xamante ni ragal nañu yàlla ba bu ma nee yàlla ñuy jooy ñii waaye waaye mënuñoo yem ak yéen yéen patron yi li leen mën a jooyloo mooy compte yu fees ñii gëm yàlla leen di jooyloo ñii di toog di jooy ngir kaddu yi may wax te yàlla tax ah du ma leen wax mukk ne leen lan yutiyakum allahu xayra yàlla du leen jox yiw xam nga yiw bi mooy lan yonente bi sallallahu alayhi nee na yàlla subhanahu wa taala wax na ci xadisul qudusi nee na man yàlla du lakk bët bu jooy ngir ragal ma rang bët bu jooy ngir ragal ma lu ama am solo la yàlla nañ ko yàlla may nga jékki rek xalaat dundiin xalaat jullit ñi wala nga téye ab aaya jékki yem ci dara te xol metti nga jooy bët boobu yàlla nee na du ko lakk xol bu oyof nag moo ko mën yàlla nañ ko yàlla may qalbun raqiq nit dina ñàkk a jooy it te nekk ku ragal yàlla waaye nit dina jooy te nekk seytaane yàlla ci yàlla musal xam nga seytaane balaa ma ak seytaane moom i bëtam su ko neexee jooy ñu baal ma loolu nag lu bëri ci ci ci jigéen la moo tax jooy jigéen olof nee na jooy jigéen bu ci yedd sa xarit bu ci dóor sa doom waaw baal baal ba xam fu muy mujj waaw moom seeni jooy moom expert lañ ay jooyologue lañ waaw mën nañoo nu ñu ko bëgg a jooyee mën nañ ko nee jooyee du ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ni bu ñu toogoon ak yow di wax ak yow rek mën nañ la yóbbu mais nag moo tax mu ne seeni jooy bu ci dóor sa doom bu ci mere sa xarit xaaral bara ngooñ yi jeex bu rangoñ jeexee léegi nga xam li mu doon wax lan la <laughs> jigéen ñi ngeen baal ma yéen yéenay suñuy suñuy waay mais ngeen ngeen ngeen baal ñu bu baax a baax a baax explication la rek ak joxe misaal du xeeb leen du du tuuti leen léeg-léeg nga gis jigéen joteeg jëkkëram tooñ ko ba pare nit ñi eh, moom kay dafa bàyyi na naa ah, nangam xam nga loolu te moom leer ko ne moo tooñ mais dana jooy ba xëcc nit ñi su ko defee ñëpp attaché wu ci moom nag commencé far ak moom gis nga bu ngeen defut ndànk il faut mbir mi yàgg ngeen doog xam ne kii nekk mbir la balaa ngeen koy xam oh ñettali naa benn xarit boo xam mook jabaram tribunal bu ñu ko wooyee rek bu jógee inna alhamdulillah billahi ladi la ilaha gayru dama koy toog ba ci yàgg ma ne ko yow yaay njëkk a def xutbatu haaja tribunal yow ku yàlla may nga <laughs> ba léegi moom laa koy tooñee su ma séenee rek de bul wax de bul wax loolu laa koy tooñee ndeysaan su ma jabar xarit la woon dama ko yàpp mais yàlla xam na ko bi <laughs> mii na mais juge bi da koy toog ba ci yàgg ñëpp ne teg mu def xutbatu haaja ba mu jeex commencé nag bayaan ci sëy sëy moom yërëmante la jëppante ngir yàlla gaay na est-ce que ñii di def nii te billaahi moo tooñ moo tooñ borom bu tooñ <laughs> mu ñu génne ma ne ko yaay expert dëgg dëgg dëgg jëkkër ji day mere mer boo xooloo looloo tax seen sëy wallahi léegi mi ngi say feneen yal na yàlla dëgëral ko kon yu mel noonu du ñëpp mais am na ñoo xam ne noonu la ñu bindoo suñu waxee rek ndeysaan mën nañoo jëm ci jooy moo tax nuuh ne wala aqulu lilladina tazdari ayunukum lan yutihum llah xayra yàlla du leen jox yiw du ma ko wax ndax kat allahu ya la gën a xam nag maa fi anfusihim seen jooy yi man xaw ma lan la am naa njort bu rafet ne ngëm la yow it moom nga mën a am mënoo nag nit di jooy nga taxaw na waaye booy booy bi seytaane la waaye lu muy jooy loolu tami il faut ñu ragal ci yàlla ndax newuñ ci xol yi li ko tax a jooy xamoo ko amaan na wax jee ko tax jooy wala amaan na keneen a jooy tax mu jooy ndax am na ñoo xamante ne moom ku jooy seen wet jooy loo leen loolu day am am na ñoo xam ni jooy da leen a yomb kon nag comme yow newoo ci xol ba xam li tax mu jooy waay bu ci àttee loolu nekkul sa mbir moo tax nuux alayhi salaam ne leen mukk mukk mukk man daal dama leen di wax ne allahu yàlla dong aalamu moo xam bi ma fi anfusihim li nekk ci seen xol yi seen jëmm yi <laughs> man xaw ma ko yàlla ko xam ndax kat yàlla moom laa yaxfa alayhi shay ne leen inni bis bu ma njortoo ne ñoom li ñuy jooy ak ceytaane la wala ngëm gi nekkul dëgg idan kon lamine addaalimin dinaa bokk ci tooñkat yi comme yéen te jamais duma ko def wax a wax ñépp ne tekk ki xam li muy wax te maîtriser ko buy wax kenn du mën a tontu ñépp nan tekk waxa waxa wax ba pare qaalu ñu ne ko yaa nuuhu qad jaadaltana nuuhu yaa mën a dagga sante dëgg dëgg dëgg dëgg qad jaadaltana qad jaadaltana li muy tekki mooy wax nga ba tiimuñu waaw te yemu ca fa ak sarta ji daala na wax nga wax ba ñun sax luñ lay tontu léegi xamatuñ ko parce que gis nga lii nuuhu wax yépp ko am tontoom amut léegi lu ci des comme nar nañoo bon ñu ne ko léegi daal fatina bi ma taiduna yow daal nee nga ñun bu ñu gëmul dem safara nee nga yàlla sa waay la kon waxal yàlla mu rey ñu mu jeex xam nga yëfar moo gàtt xel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waroon a jël njëpp nga ne ko neel yàlla mu rey ñu fàtti fatina bi ma taiduna li nga ñuy dig ne bu ñu jaamul yàlla moo ñuy dal indi ko in kunta min as su fekkee li ngay wax dëgg la indi ko amul yonente bu ñëw lu dul wax nañ la baat bi amul yonente bu ñëw même yonente bi salla sallam nee nañ ko waxal sa borom <laughs> mu taw ay xeer xam nga taw ay xeer bu taxee ay xeer du ngeen ci mucc boo taxee màkk xool montagne ba def nga ni nga ni yàlla tawal ay xeer yow dafa la jàpp kon gis nga yéefar moom lu ko neex wax qaala nuux tontu leen ne leen innama xam leen ni yatiikum bihi mbugal moomu yàlla dana ko indi inshaa su ko neexee dana ko indi ñaanaguma ko te ñaanuma ko waaye su ko neexee moom yàlla dana indi mbugal boobu ngeen di wax te bu ñëwee wa ma antum bi mujizin kenn ci yéen mënul raw kon jarul ñaan bu ko yàlla indee dana am te bu ko indee kenn ci yéen du mucc gis nga baat bii nuux wax na ko jàpp ba ci mujj dund nuux baat boobu mooy nekkaat dëgg bu mbugal ma ñëwee kenn ci ñoom du mucc lu dul ko ànd ak nuux bi mu ko defee nag nuux ne leen waar naa leen ba sonn ngeen bañ gis nga baat bi walla yan fawkum nusxi du ci benn baat bii rek la ko wax wax naa ñoom ay jotaay yu bari di leen conseil dund ak ñoom ay ati ati at te at yooyu kat borom bi wax nañu ko nee nañu junni at bu manqué juróom fukk la kon nuux avant moo ñaan wax na ba sonn gone juddu na ci wetam ñu ngénte la mu lekk salaax nga dem ba nekk màggat weex tàll weddi ko dema dema dema dem ba mu gi sax nuux xam ngeen ni junni at ku ko wax wax nga ba dee nit ñi dem nañ ba bu ñu séenee nuux sax dañ naan muuroo leen seen sëriñ bu leen ko déggati ñépp ne nii ñii ne muur leen seen nopp ñu ne nii lu ne def nañ ko nuux nuux muñ rek continuer moo tax daawa bi patience la maanaam lu la ci dal xamal ni dal na ku la gën te ëpp la fa yàlla doole kon nag bu la ci dala dal rek nga mer te kat olof nee na ku mënta xaar lu yàgg doo jot lu bees kon kat mbir mi moom patience la il faut ñu wax la musiba il faut ñu def la ci niñ ko mënee maa ngi nettali barki démb ab nit dama woo dama yow yow yaa ni diw du yonent ma ne ko sa wax la de man waxuma loolu de yaa ko wax kay xanaa dangaa ragal ma ne ko ragal du wax ñu di ko dégg ragal du wax ñu di ko dégg yow daal nee nga diw du yonent man man man dinaa la rey pare naa ma ne ko gaawal ma toog àjjana xaar la fa nga fekk ma fa lii gis nga mbiru yàlla li tax mu doy waar ñi gën a tàng bu ñu paree dañuy dem xoole ab nit saaga na ma saaga bu ñaaw ba sama waa kër am tul leen mett sam grand mère alhamdulillah tey woo na ma nee na ma la nga waxoon ma meroon ba saaga la dama lay jéggalu ma ne ko baal naa la mu ne ma dinaa la wax lan la ma ne ko jaru ko bu ko wax mu ne ma il faut ma wax la ko ndax tranquille ma il faut ma wax la ko ma déglu ko moo ba tey mu ne ma tey alhamdulilah maa ngi dund ci sunna ma ne ko yàlla yàlla dëgëral la dëgëral ñu dëgërël ñépp jubluwaay bi loolu la tooñu ñu ñu lenn téere bii ci boppam moo tooga di foo ko tuddee laal nit <laughs> téere bii non non téere bii moom ku pare war koo tafsir moom bu yeboo na nga watu nel bu dinañ la xaañ lu ne lañ lay def xaw ma nag nga nga téye ko ba pare trahir ko moom mën nga koo téye di tafsir trahir ko ñu bëri moom la ñuy def téye ko tafsir trahir ko jël aaya yóbbu ko ci ay këru diine jël yóbbu fa la neex gaa yi dañu koy def am na gaa yoo xamante ay expert lañ mën nañoo jël aaya taawil ko ba mu niroo kër sàngam mais ku ko waxee ni ko yonente bi waxee yàlla waxee ko noonu ay xol danañ jóg de lu ne la nit ñi wax na ko waaye gis nga nuux lu ne wax na ko lu ne def nañ ko fan la mujj taxaw nag xol bi metti dem na ba jabaram bokk na ci kilik gi moo tax jigéen wallahi bépp jigéen bu ñuy maye say waa kër booy sëy la ñu lay dénk dee ko bàyyi xel boo demee déggal ndigal toppal sa borom kër ci li neex yàlla nan ngay ñëwee ngay sëy ak nit ñu muur la ne la déggal ndigal toppal ndigalam ci li neex yàlla nga ñëw ngeen ànd diine di leen boole yéen ñaar diine di leen boole yéen ñaar kon ndigal lañ la santoon defoo ko lan laa bëgg a wax li ma bëgg a wax boroom dañu ko dégg xam naa ab jigéen joteeg boroom këram boroom këram ne ko dama bëgg nga dund diine mu ne ko ma diine dundal sa dund bàyyi ma ma dund sama dund coow li bari ñu dem ci famille bi papaam ne vraiment ba nga koy takk nii nga ko fekkee woon bàyyee ko nii xoola loolu ndax lii kilifa war na wax lii ci koo xam ni daawoo sa doom ci bàyyi mees bàyyi sol yu xat bàyyi nangam nii papam ñemee ose ñemee taxaw ne bàyyi ko mu nekk ci lii waa ji ne ah maa ngi leen di wax lenn de damay bañ ëllëg lu am ngeen ni dama trahir dama woor gis naa loo xam ni kenn mënta taxaw sama kanam baare ma bëgg naa nag ñu ànd te yàlla tax à condition mu fekk ma ci lii ma nekk su dëgëreen du ci nekk dama koy bàyyi papaam ne ko bàyyi ko wala papa ji ne ko bàyyi ko non yàlla nañu yàlla defal tawfiq léeg dangay xool doo xam mbir yi lan day nuru léeg-léeg nga gis papa yoo xam ni daanaka dañ ca yem képp ñoom daal papa rek la am ci famille bi mais leneen amuñu ko yàlla nañu yàlla dimbale nuux ñëw ni nit ñi yéen samaw nit wala yanfaukum nusxi conseil yii ma leen jox ay ati at jëlu leen ko ba lii ma leen di wax naru leen a jëriñ in aradtu an ansaha lakum su ma leen bëggee conseil ngeen bañ ah maa ngi leen di wax ni in kaana allah su fekkee moom yàlla yuridu bëgg na an yaxwiyakum wala an yuxwiyakum mu bewloo leen man munuma ci dara ndax yàlla kat huwa rabbukum mooy seen borom wa ilayhi turjaun te da ngeen ci dellu loolu mu wax wala du foofu xaala daf ma xaw a ah waaw damaa defe nii xam na waxtaan bee neex moom mu fàtte fi ñu toll barakallahu fiika yaa ngi topp bu baax noonu la eh, nuux lii mu wax nii ci këram la dal mu ngi conseillé di laaye biir mais taxul jabaram bokk mi ngi conseillé di laaye biir mais taxul doomam bokk moo tax nuux neleen yàlla moomu bu leen bëggee bewloo man mënuma ci dara keneen munu ci dara ndax yàlla huwa moom rabbukum mooy seen boroom te wa ilayhi kat turjaun ci moom ngeen di dellu ñun ñépp ci yàlla la ñuy dellu am yaquluun moo ndax ñoom dañuy wax ni nuux daal lii mu wax iftaraahu moo ko sos fen ko yonent du sos déedéet mukk mukk du sos qul maa ngi leen di waxal ne leen in iftaraytuhu su fekkee maa sos yoon bi ci sama pexe bopp sama xalaatu bopp samay waxu bopp kon fa alayya ijraam yi sama caay-caay dana dellu ci man ijraam mooy caay-caay ndax caay-caay weesuwul nga waxal yàlla lu mu waxut caay-caay weesuwul nga sos lu yonent bi sosut neexut a firi mais loolu lay teg képp ku indi yoon bu bokkul ak yoonu yonent bi rek caay-caay nga sos moo tax yonent bi rafetal ko waaw ne kullu bidaatin wa kullu dalalatin parce que yonent bi indi ne wa anna hada siraati mustaqiman lii kat mooy yoon bu jub nga ñëw créé beneen ne dana jëm ci bu yonent bi Ah, da dëgër fit rek de waaye xam nga ni loolu mënta nekk kon nag nuux ne leen bu fekkee maa ko sos fa alayya ijraami kon kat war na ci man sama caay-caay te mooy sama bàkkaar wa ana man bariun aji deñ laa mimma tujrimuun ci caay-caay gi ngeen def mooy dangeen ngeen maa bañ a topp bañ a topp lii ma yàlla sant léegi nag wax naa li ma xam ñu ne ko eh nuux boo dee yàlla tawal xeer dimbalanu waaw dund nga fi ba weex tàll karaw bu weex sax topp la vraiment paa bii moo ñu lakkal lu ne wax nañ ko baat bu ne teg nañ ko nuux nuux dem na ba bu toogee ci bërëb dañ koy romb lu ne lañ koy wax waaye borom bi woo nuux wa uuhiya wax yof na ilaa nuux ne ko lan yumina gëm ti mukk mukk mukk lan na mooy gëmti ci olof mooy du gëmati mukk mukk mukk mukk mi ko ci seen nit illa man qad aman lu dul ña jotoon a gëm mooy sa ñeen fukk yooyu nga amoon <laughs> nuuh lool mooy sa nombre ci ngay yem ah nuuh ne kon nag comme yàlla nag yaa ma yónni woon gën maa xam dem ba ne ma kenn dootul ñëw kon gëm naa ne kenn dootul ñëw dafa mel ni yàlla dafa xamal ni nuuh ne ko sa mission jeex na ndax mission mooy wooteel ngay woote ba ci yàgg ñu ne la jaratu ko ndax ñi ngay woo duñ ñëw loolu lu muy tekki <laughs> mooy noppalul mooy sa mission mat na léegi nag seen ñàkk gëm sa jabar ñàkk gëm sa doom ñàkk gëm sa famille ñàkk gëm fala tabta is bul jàq bul metitlu bi ma kaanu yëf alun ca lañ doon def yow daal maa ngi lay digal léegi benn solution moo am woowoon nga ma ne ma yàlla ñii naratu ñoo gëm ñaan nga wax nga lu nekk léegi danaa la ko nangul waaye danaa la sant nuux ne ko loo may sant mu ne ko was na il fulka ci la ñuy ñëw insha allah dars bii di ñëw defe naa jànguma ko de was na il fulka kon insha allah moom la ñuy ñëw samedi bii di ñëw yal na yàlla def ci ñun dégg topp def ko ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh